vous monsieur le ministre mais laata loolu dañuy retrouver Nana Aïdara dans Société c'est tout de suite Nana ñu ngi lay nuyuwaat encore une fois maa ngi lay fayaat euh, Néné Aïcha euh, tey société dafa ñëw rek euh, ci li ñuy wax suukaru koor su ko ah. mu nekk loo xam ne chaque année dafay nekkaat actualité. am na ñu muy terrorisé de sonn waaw <laughs> mais li ci gën a neex sax mooy instant bi jigéen ñi suukaru koor la ñu gën a tiit ko corona gi. <laughs> looloo ci gën a doy wax donc am na ci benn waxtaan bu ma ci seetkoon ak benn maire mu wax ñu tuuti lan moo suukaru koor mun nañ ko seetaan dellu si waat ci plateau bi. suukaru koor de wax dëgg yàlla dañu judd fekk ko fi sunu ay maam daan ko def sunu ay yaay daan ko ci yooyu mu doon loo xamante ni nag cosaan la fi boo daan jéeg bu ndaw ñu muur la nga sëy koor gu jëkk bu la fekkee sa biir kër goro say waajur ci boppam ñoo la naan joxal sa goro suukaru koor nga daal di dem jënd paquetu suukar ñëw sukk sa kanamu goro wax wax ju neex ànd ak yar ki teggin na ko yaay am sa suukaru koor ñu teg ci ñaari fan ñett nga jëndaat suukar boobee jox sa premier njëkki jox sa deuxième njëkki muy sa goro muy sa njëkk ñoom ñëpp gërëm la sant la ñaanal la yàlla kër goo fumb naan ngeen ku ne daal di dem defi leneen loolu la ñu xamoon léeg-léeg sax am na ci jekk ñoo xam ne ñu joxe sax paquetu suukar ñoom ñetti téeméer lan daan joxe ñetti téeméer la ñu jox seen goro nit suukaru koor ñetti téeméer la jox seen njëkk yi premier njëkk deuxième njëkk suukaru koor te ca jamono joojee ñetti téeméer xaalis la woon dañ ko daan nawa nawa nawa naw góor yeeg njëkk dañ ko daan nawa nawa naw ba wàññi denc sant la ci nag mu nekkoon nag geste boo xamante ni bi da daan boole diggante yow jéeg bi sëy ci kër gi ak sa goro jéeg bi sëy ci kër gi ak say njëkke da ngeen daan di jàmmoo kafoore mu nekk loo xamante ni daal jàmm la daan indi si biir euh, euh, kër gu kër gu jekk ci sëy jàmm la fa daan indi macha allah muy aada bu noble wax dëgg yàlla am jamono di dem jamono di dem jamono di dem ba mujj bi sax jeeg ji bàyyi paquet du suukar yi bàyyi 1500 yi yóbbu ko ci juróom-ñaar téeméer di ko def juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn yaaru vax bu koor jotee. yéeg yi njëkkante kenn ku nekk six yaaru vax ak juróom ñaar téeméer ñooy jox sa goro ñaari fan ñett nga dem jox sa premier njëkke jox sa deuxième njëkke kër gu xumb naat ñëpp war nekk si jàmm ñu ñaanalante waaye li xew léegi xaw ma ko suukaru koor euh, cent mille suukaru koor fanweeri junni suukaru koor deux cent mille booleeg ay jesneer Mansour nee na dinañ dem ba 7 millions nana <laughs> dinañ dem ci kóoru koor ba 7 millions. jege jege de. billaay. xam nga benn doom bu góor benn doom bu jigéen day soo commencé xew. Mm-hmm. mais ñun suñu génération suñu juddu woon ñëpp am nga da am ñeent rek am juróomi juróomi mag. donc bu fekkee say sœur yëpp sa soxna ku ne la da laa bëgg a jox benn cent mille wala benn cent cinquante mille. compliqué mais dañoo gis monsieur le ministre bi ñu wax waxu sukkaru koor daa reetaan euh, nana reetaan na ba munul xalaat ci sukkaru <laughs> mais man d' accord laa ci ah. ah man maye maye ci boppam laa d' xam nga xam nga ci réew tubaab yi ay njëkkee. wala su maat suma ma tante wala même pap wala su ma yaay il n'est pas question bu ma koy jox xaalis mm-hmm. mais ñun ci suñu tradition am na li ñuy woowee l'économie du don maanaam économie mm-hmm. ci histoire aussi ci suñuy légende dafa am ay euh, euh, ay ay gestes yi nga xam ne dafa doy waar da ngay dem di joxe di joxe di joxe ba desetoo dara dagg sa nopp. <laughs> autrement dit autrement dit. Mhm. que gis nga euh, <laughs> ñun maye symbolique la. Mhm. du volume bi ngay maye moo important. Mhm. mais geste bi. jël dara ci yow jox ko nit loolu courage la. parce que xam nga courage générosité la nit ki mënoo nekk généreux sans être courageux mënoo mhm. nekk courageux sans être généreux donc li ngay joxe c'est un gest symbolique mhm. dégg parce que nit ki euh, man maa ngi dëkk Fuuta mhm. gisa dañ doon bay après la saison des bu ñu récolté ba pare am nit ñiy jógee ci benn gox ñëw nga jël ci sa ci sa récolte. Mhm. jox ko te tu ne t'attends pas à ce que mu remboursé la. wala mu wax la sax merci. xam nga loolu lu tax parce que day consolider les liens sociaux day consolider li ñuy li ñuy woowee le lien social communautaire. Mhm. maanaam day dëgëral diggante nit ñi. parce que ñun boo buggee traduire économie ci wolof. wala pulaar wala mandeng wala joolaa et consort am na ci biir li nga xam ne day joxe la subsistance de quoi vivre voilà économie c'est de quoi vivre effectivement de man j'ai pas besoin de garder de l'argent fekk kii la na a besoin pourquoi parce que man bu ma koy def je sauvegarde la société da ngay xool les immigrés par exemple ils sont partis non pas pour eux-mêmes mais pour leur famille et pour leur communauté mhm. moo tax ñuy investir ci ay ay euh, adduction d'eau ay électricité ay éducation taxawal ay bureau de poste et cetera et cetera mhm. ci sunu culture la parce que comme disait l'autre c'est honteux d'être heureux soi-même c'est seul yow rek nga am ba neex fekk tout autour de toi les gens ne sont pas heureux c'est très clair chez nous c'est donc euh, dañuy dem jëli pub. Euh, nee na ni nga ko waxee rek heure sallallahu alayhi wa sallam daal dina jot euh, tey nag dugal nga ma ci ruq bu xat a diggante xaaji Mansour mooy min Màkka min Medina. comme ni ko sëtu yonent bi di waxee Ahmed Aydara ak ki nga xamante ni dama wax ni tagg yonent bi bu fekkoon ni lido la lido kuy tagg yonent bi ba dem Medinatul Munawwara taxaw tagg ko Omenga. Hmm? tagg yonent bi bu doon lido. bu doon lido nit di tàgg yonent bi bañ jox ko ci billet mu bàyyeekoo ci réew mu mënti doon dem ba tim yonent bi a wara bu doon lido laa wax ku ko def omenga oustaz sax man yow lido ngay dàkkee koor sax on dirait. <laughs> lido euh, kase xamul comprendre li bëgg wax de. c'est-à-dire lido boobu ome. ome mais oméga bi mooy lan. waaw oméga ça veut ko que mooy amatul ci àdduna lu gën a rëy loolu. maanaam jàpp nga ñëpp. voilà dafa am ah, ñaari waay dafa dafa dafa am ñaari waay yu toog ci avion jàkkaarloo. Mhm. kenn ki daan ni ko euh, teraanga ju doomu aadama euh, mu ngi yem ci yéeg avion beneen waa ji ni ko non loolu moom gëwuma ko mu ni ko lu tax mu ni ko mook oto ñoo yam da ngay am rek passeport am visa dagg billet daal di dem. mu ni ko teraanga falayam mu ni ko ci jullit laa wax ndax yàlla bi mu nammee teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yéege ci alburaax mu yéeg fekk yàlla yéeg boobu moo tax may wax kon nee na teraanga jullit mu ngi yem ci bàyyee ko réew mu mënti doon jaar màkka joxe say farata de war munawara ziyaar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mouhamed maa maa ngi jéggalu ci kàddu yi ay dafa am lu am solo loo xam ne faaw ma wax ko dina ñëw dina ñëw ñëw ci plateau bi uh-huh. ci lañ ma woo ci yoon bi may ma bee màkk. macha allah. bi may ñëw grand plateau. macha allah damaa ñëw ba ci yoon wi. ñu dévier ma. ma ne chauffeur bi jubalal kër ki ma dévier muy Adja Sagartaal. ak entente féminine. sama groupement yooyu yàlla na leen yàlla taxaw. mu woo ma ne ma Cheikh Modou foo jëm ma ne ko damay defi émission grand plateau te direct la te xam nga moom damaa mën a tardé tardé naa. <laughs> mu ne ma mais mënut a ñàkk jaaral. ma ñëw ñu fekk leen ci salle bi mu yëkkati enveloppe ne ma billet màkk bi fi ñëw association bi nee na yow lañ koy jox. macha allah maa ngi jëm si ci plateau bi. Eh bi ma ñëw damaa indaale sama billet waaye boobu émotion beeg xol bu fees jàpp na ma sax ba waxuma ko. dem nga ci jàmm ñëw nga ci jàmm lan nga may wax ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. wa badalil wujudi min karimun laa ilaha illallah nee naa la bu minuit passé rek sa xel dem ci sallallahu alayhi wa sallam wa badalil wujudi min ka karimun gis nga naar yi nag doonu mën a way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida bii muy wax benn la ci naar yi way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa badalil wujudi min ka karimun te ki way xasida bi bi mu way xasida bi mbooleem borom xam-xam i dañu koo dal dañu ko wax ni ko waroo woon tëb direct way yonent bi da ngaa waroon def li Mansour xam na li may wax gazal comme war baraatu mel ni am na looy junj ba ci yàgg nga dal ci yonent bi waa baradaalil wujudi min ka karimu yaa ngi dégg burdu bu gàmmu jubsee loolu ñuy jàng burdu boobu ñuy jàng moom moo ko bind imaam bu seyru moo bind burdu moo bind way wi waa badaa lil wujudi min ka karimun gis nga ci biir xaside bi mu ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàllaa ngi lay préparel ay teraanga yoo xam ne yow rek yaa ko yeyoo kay ba dal xaaru ki yàggal anbiyaawu kenn du yoon noonu laay jugee taxaw maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi seetaan grand plateau te nekk ci sa kër boo jugee taxaw ci barke yonent bi yàlla na yàlla faj sa aajo kay ba dal xaaru ki yàggal anbiyaawu kenn du yoon monsieur le ministre dafa am benn borom xam-xam bu wax ni waxul minal bidaa mustahsanaati xiyaamun inda zikri tuluu'i shamsi nee na bokk na ci daraja yi gën a kawe booy tagg yonent bi nga jóg taxaw kay ba dal xaaru ki yàggal anbiyaawu daaw te moo ne ne ne ki bind xasida bi avant muy bind xasida bi feebar na feebar boo xam ne dem na ba yaakaar ni dootul wérati kayfa darna ruqiyaka lan biyaaw dara boo xalaat fajoon na ko ngir bëgg wér waaye daal feebar bi gën na koo sonal kayfa mhm. te li gën a yéeme corona la nu tollool waaye dem na ba feebar bi ëpp na dayo ci moom kayfa darna ruqiyaka lan biyaaw médecin yi seen xel jeex na ci moom ndax mënatuñoo faj bu seyru kayfa tarqa ruqyaka al-anbiyaa muy toog ba ci yàgg xelam dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diir mu feebar nag ma ngay woy yonent bi. kayfa tarqa ruqyaka al-anbiyaa. monsieur le ministre mu jàpp yonent bi way moom Bouchayru di way yonent bi ba ci yàgg mu ni man daal ki may way naka doomu aadama la. kayfa tarqa ruqyaka al-anbiyaa. ci biir way mu ni yonent bi. fa mabla'ul ilmi fiihi annahu basharun kenn du rasulullahi. kayfa tarqa ruqyaka al-anbiyaa awliyaaw dëgg-dëgg may way di doomu Abdoulaye Diak Amina ma koy way nekkete doomu aadama rek bu mel ni doomu aadama yi ñëpp def ni ñu màggal borom bareer woor wa annahu yëgal ni ki nga jàkkaar lool Madina mooy Muhammadu Rasulullah feebar bi fa la jaaree daa di waaye tey maa ngay dugg ci juróom-ñaari atu rasulullahi borom bareeroor ba jëmadina mooy muhammadu rasulullah monsieur le ministre ndax yëg nga feebar bi njëkk dal yonent yàlla muhammad ci àdduna borom bareeroor ba jëmadina mooy seyduna muhammad Fatou Abdou dama laa bëgg a wax feebar bi njëkk a dal seyduna muhammad ci àdduna maami soxla na na ay dara sama may Muhammadu Rasulullah. yonent yàlla Muhammad bi ko feebar bii dal Mansour booba fekk na mu ñàkk baay booba fekk na mu ñàkk yaay. Muhammadu Rasulullah. wax naa la bu yàggul ni bi ko woy juróom bu jigéen ëmbee ba mu am ñaari weer ci la bàyyam dem barzak. Muhammadu Rasulullah. ndey di mee nabi bi mu amee juróom benn at ci la ñàkk yaay waaye lu jiitu muy ñàkk yaay dan na baayam. Muhammadu Rasulullah. bi mu juddoo. juddoo fekkul baayam ñëw ci jamono day toog ba ci yàgg mu ñëw ci yaayam ni ko yaay man ana sama baay ana ku fi gën a bëgg borom bareeru or ba ca Madina boobu buub yaayam daf koy nax naan ko sa baay dafa dem saam wuti commerce dina dellu si ci jàmm Muhammadu Rasulullah mu am ñaari at di laajte yaayam di laajte baayam yaayam di ko nax naan sa baay dafa dem saam Muhammadu Rasulullah mu am di laajte naan ko sa baay dafa dem saam ey ñëpp def ni ñu màggal borom bareeroor ba Seydina Muhammad monsieur le ministre bi mu amee juróom-benn at ni yaay dama bëgg nga wan ma kan mooy sama baay Muhammadu Rasulullah booba baayam nelaw na waaye yaayam ni ko sa baay commerce commerçant yi di ñëw jóge Cham sa baay ci la bokk sa baay buy ñëw incha allah ren ren ren di nga gisee sa baay Muhammadu Rasulullah waaye li daw yaram njëg mi bàyyeekoon a saam dugg Makkatal Mukarrama Muhammadu Rasulullah. xale yi dañuy def Mansour dañuy xam kañ la seen baay di ñëw xale yëpp ngi ci ci mi di teeru seen ay papa. Muhammadu Rasulullah. nabi ngi ci biir xale yi waaye ku musul gis papaam dafa toog rek da gis xale bu toog gis njëg mi ñu wayal la sar xool xollal la benn baay daal di wàcc mu xool doomam doomam xool ko baay bi daw akolaat doomam ñoom ñaar ñu ànd ñibbi. Muhammadu Rasulullah. ci gàttal Mansour xale yi nekk yaa ngi gàttandu sa baay njool màkkaa ngi ci xale yi xamul baayam musul gis baayam muhammadu rasulullah xale yaa ngi wàññeeku di nuy seen i baay baay yaa ngi wàññeeku rasulaay ngi ci biir xale yi dëgg-dëgg yow yaa jërë woolu yow Muhammadu rasulullah. xale yi wàññeeku ba mu des ñaari xale ak yonent yàlla Muhammad ñaari nit di ñëw nekk ci ay gileem nabi di xool booba baayam dee na waaye waxuñu ko ko muy xool naan ñàkkul ni ñaari baay yi am na ku ci doon sama baay yi. Muhammadu rasulullah. waaye comme borom kersa la fi mu toog ñaari xale yi jugandoo daw benn xale bi daw akolaat baayam beneen xale bi daw akolaat baayam mu des njool màkk ci penc mi. jërëm na di xool pencu màkka ba pencu màkka jeex gisul bàyyi jeex nañu ñëpp dellu seeni i kër jirim la baayo la moom rasulilaay juróom benn at la mu daw attaqué néegu yaayam jàkkaarloog yaayam ni ko ana sama bàyyi jirim la baayo la moom rasulullah yaa jiraay bi ni ko ma defal la Mustafa bi ma la ëmbee ba am ñaari weer ci la sa baay dem barzaq jirim la baayo la moom rasulullah mu ni ko nu may def ba gis ko mu ni ko war naa dem Medina bu may dem Medina dinaa ànd ak yow ma wan la sa bàmmeelu baay jirim la baayo la moom rasulullah nee na def nañu takk jug nabi ànd naak yaayam ñu war a dem Medinatul Munawwara ey muhammadu rasulullah dem nañu doxal seen gan li daw yaram rasulaay war a tourné ànd ak yaayam ñu ñibbisi ay waay kenn du sidina rasulillah waaye bi ñu ñëwee nday ba tolloog almeeri bàyyi rasulillah yaayu nabi ni ko almeeri yële la nu suul sa bàyyi afiru liaasi minu mu sabo njol maaka yaa leen gën waaye diiru ñuy dox nabee ngi laaj ana baayam naan ko yaay kan mooy sama baay mu ne ko yow Mouhamed Abdallah moo la jur mu ne ko ba yaay Abdallah ku ko jur mu ne ko Abdul Muttalib Abdul Muttalib kan moo ko jur Hashim Hashim kan moo ko jur mu ko Manaaf Abdou ko jur mu ne ko Xusay Xusay kan moo ko jur mu ne ko Kila kilaab kilaab kan moo ko jur mu ni ko murata murata kan moo ko jur mu ni ko kaab kaab kan moo ko jur mu ni ko luway luway kan moo ko jur mu ni ko xaalib xaalib kan moo ko jur mun ko fihir fihir kan moo ko jur mu ni ko malik malik kan moo ko jur mu ni ko kinaana kinaana kan moo ko jur mu ni ko xuzayma xuzayma kan moo ko jur mu ni ko mudrika mudrika kan moo ko jur mu ni ko ilias ilias kan moo ko jur mu ni ko mudar mudar kan moo ko jur mu ni ko nizar nizar kan moo ko jur mu ni ko maat maat kan moo ko jur mu ni ko adnaan nabi foofu la sa ay maam yam man wi jaayu soit naanal fa taxi woo xat yaa miin waaye monsieur le ministre xam nga moo daw yaram njol màkk ànd naag yaayam dugg nañu ci almeeri naaj bu tàng na afiru siasimim ma saba mar njol màkk yaa leen gën yaayam jël na ko kii tëdd mooy sa bàyyi rasool afirus liasimim ma saba njol màkk yaa di ko xool yàlla yónni malaakal mawti afirus liasimim wallaay borom barrière ba lii laa doon xaar ci yaayam xoolal fee yaayam toog fee laa bëgg nga yóbbu yaayam barzaq afi rusia simin musaba ñool màkk ngi ci kaw yaayam toog yàlla yónni malaakal mawti ci yaayu rasulullahi afi rusia simin musaba sama waajaa leen yaayam a ngi téye loxoy naan ko kii te day sa bàyyi naka te yàlla ngi yónni ci yaayu afirgalen yaayu nabi fi mu toog yëg na ni day dem barzak njol makka ngi ci kawam toog afirru di asimin mosabawa njol makka leen yaayu nabi bi mu commencé yëg sukuraat xool njol makka xam ni tey la koy mujjee gis mu ngi am juróom benni at afirru di asimin mosabawa sama trondoo leen léeg-léeg yaa ji jël ay baaraamam dugal ci baaraamu rasulullah boole ñaari bank afirul yaasi min musabba borom barrière baa leen gën Mansour léeg-léeg mu xool yonent yàlla Muhammad yaa ji yëg ni day dem ni ko doom kullu xayin mayit wa kullu jadidin baali doom lu mës a bees dina ràpp waaye lu mës a nuyoo dina mës a tàggoo yaayu na bee ngay xool njool màkk na bee ngi xool xabru baayam ngir kersa nekk yàllaa ngi yónni malaakal mawti malaakal mawti ngi jëf ci yaay yonent yàlla Muhammad yaayu na bi nee na bi ma demee ba sukkuraat sori ma xam ni xale bee ngi ci juróom benni at da ndara tumuranke màkk ma tourné jàkkaarloo ak moom jaay bopp bi nee na maa ngi koy fóon nday joor di fóon càmmañ léeg-léeg ma jël njool maa ko teg ci sama kaw yaayu nabi nee na turna war rasulaa yi teg neke bi mu tegee rasulaa yàlla yónni na malaakal mawti mu jël loosi rek taf ci bopp sayyiduna Muhammad almawtu baabun wa kullu naasin daaxiluhu nee na dama lay faral di wax ni la fanweeri fan la lu ñu gën a dem rek gaa ñu gën a sopp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di bu baax nag sama téer boobu taalibi sëriñ euh, Fallou docteur boobu sëriñ Mbacke Ndiaye ah, ñëw yu rafet yëpp moom moo koy ñëw tabarakallahu am na am na solo xaaj Mansour xaaj Mansour إلى الله وإن خلفت فنا وما مغلان ما للمرء غير همة فاتر لنفسك أين دار تختار